alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirata al-mustaqima siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin la hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim alhamdulillah sëriñ bi maa ngi lay fay eh, di la ziyaara di la ndokkeel tamit si seet si bi ak dalal bii nga dalal ñu macha allah asalaamaaleykum mm. Ah, man ñu ngi may wax Cheikh Baye Moustapha Dieng Sala Baye waaye si faba wàllu fajum cosaan ñu ngi ma si wax sëriñ Kemtaan borom béjjën jën mhm. bi lan moo ko andi. waa Kemtaan borom béjjën bi xam naa nag duñ ci mën a xu xuus Kemtaan bi parce que ñi may liggéey tout le temps su may liggéey di def ak ñoom yenn saa yi ñëw wax ma aajoom aajo bi critique lool mën na ko demal incha allah yàlla mi borom jaam yi dina ko faj du ko gëm waaye nag bu demee ba mbir mi faju mu ñëw ne ma kéemtaan nga kéemtaan nga mu dem ba nit ñi suñ ma fekkee samay eh, xarit ma toog ñun ñu naan ma kéemtaan kéemtaan mu dem ba kéemtaan bi law nit ñi naan ma kéemtaan kéemtaan kéemtaan foofu moo indi kéemtaan bi. jën bi moom mbuut la damay ñaan nga jéggal ma ñu bañ ci xuus. seet. Mhm. da ngay seet. waa damay seet kay. seet seet ci pettaaw seet am naa si lu tollook fukki seet ak juróom yoo xam ne mën naa ko waaye néew na nag ma utiliser si benn benn benn benn benn benn benn parce que yàlla dimbale nañu ba buñ jàkkaarloog doomu aadama bi rek danañ xam lu nekk si yow yëpp. moo tax seet des nañ ko faratal waaye dañ koy seet boo buggee nag ñu seetal la dëkk bi toll na foo xam ne nit bu ne la seetal ma il faut nga yëngal sa kurus nangam waaye dañuy seet si kurus dañuy seet si ramli dañuy seet si elmu nujum dañuy seet tamit si kii nu mu ndox dañuy seet si euh, kaas yu bëree bëri dañ ciy seet waaye duñ seet si pettaaw ak lépp loo xam ne daal l'islam daf ko tere duñ ko utiliser. Mhm. lay wax <laughs> loolu de yenn saa yi ma seetal nit ba pare mu génn dem dal si ku ku ñu boole woon ne yow kanaa kuk da nga ko wax samay mbir. te amaana sax duma ko seetal day ñëw rek toog ma ne ko noo tudd mu ne nangam ma wax lu nekk si moom te nekkul loo xam ne luñ koy wax lu muy weddi la lépp loo xam ne nekk na si moom dinañ ko ko wax ba wax ko loo xam ne sax foogu foogutoon ne dinañ ko ko wax bàyyiwutoon fàtte woon na ko. loolu dañ koy def si seet loolu nag du suñ ndam wala du suñ doole may ak yàlla la yàlla ñu ko may. Mhm. seet bi moom faaw nit ki ñëw jàkkaarloog mukk man ñu si ëpp ñu may seddal bitim réew lañ nekk. Hmm. ñu si ëpp ñi tax ma jël suma kuréel di seet ëpp doole gi yëpp waa bitim réew bitim réew lañ nekk. bitim réew ñu si ëpp ñu may liggéey sax bitim réew waa diaspora bi laa gën a liggéey ak ñoon moom soo ne kéemtaan borom béjjén bi xam nañ ko bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax baax seet moom duut kii euh, soo ñëw wooyee téléphone nañu diw nangam nangam rek ñun si sensi mën nañ bañ a sax wax la lii sa gàllankoor buñ jàppee tamit mën nañ couper seetal la boo ñu waxee say mbir nañu lii mooy sa mbir bëgg naa nga seetal ñu si bunt bi wala fànn bi dinañ la seetal te seet bi bu yàggee ba yàggu du def fukki minute ñu waat la wax la sa seet. Mhm. ci wàll boobu naka nga koy liggéeyee da koy liggéeyee ci wàllu fétis wala ci alxuraan wala ci liggéey ci nag du liggéey fétis lépp lu may liggéey si alxuraan laa koy liggéey ak sunguf ak reen ak sama kurus parce que tamit ay jullit lañ. waaw lu ñuy liggéey ñun liggéeyuñ fitis lépp lu ñuy liggéey rek day dëppoog sa diina ñun jullit lañ tamit ñaareel ba tamit ay sëriñ daara lañ ay jàngalekati alquran lañ ay yarekat lañ tamit ci diina waaye yarekat lañ tamit ci jikko kon am na yenn yi moom wax dëgg duñ ko liggéey duñ liggéey lépp lépp lu ñu liggéey day méngoog suñ diina lépp lu ñuy liggéeyal nit doomu aadama bi ci alquran la wala euh, reen wala sunguf wala kurus lu loolu duñ ko liggéey lépp lu ñuy faj ci doomu aadama bi soxla lum critique critique critique critique ci alquran lañ koy fajee

beneen a ngi ne am ma beneen bu nekk na le maanaam beneen bu nekk ne xale yaa ngi ci kaw tamit di jàng alxuraan fii moom këru daaral tamit dañuy yarate mooy su njuute alxuraan jàng alxuraan jàngale ko yar doomu jullit yi si jikko bu rafet loolu mooy su njuute donte lii dañ ciy dox dañ ci liggéey di si jàmbale dimbalanteeg jaamu yàlla yi waaye tamit ginnaaw loolu dañoo bëgg a bokk si ñu doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne ku man ta'allamul quran wa 'allamahul quran ku gën si ni ñi mooy ku jàngal quran ba pare di ko jàngale loolu mooy suñu métier mais tamit lii danañ si dimbalante ak jàmm yàlla lu ñu si yàlla xamal as néew ñu jàppalante ak jaamu yàlla yi fillaahi lillaahi wax nga ko dimbalante. Mhm. dañoo gis bu ñu njëkkee ci wàllum bi nga xam ne mooy faj jàngoro. Hmm. Euh, bi yenn xeeti jàngoro moom ngay fii dama lay wax ne jàngoro burut jàngoro jinne indi nañ ko fi te yàlla faj na ko. jàngoro jinne sax indi nañ ko fi. parce que ñag-ñagi nañ ni takk ba mu teeng indi bala muy génn dafa ànd ak ñu bala mu jóge dafa ànd ak ñu ko fi takk yóbbu faj nañ ko. ñett feebar yi laa ne dam man naa ko waaye duma ko faj parce que du ma ci dugg jàng naa nuñ koy faje xam naa nuñ koy faje waaye su ma si amee client bu ma wax ne loolu laa bëgg ak li dinaa la xool ku ma la orienté waaye man duma ko liggéey mi ndoxum siti émérique asma waaye burut loolu feebar lum garaaw garaaw garaaw garaaw bu ma si jotee day tane feebar ñi muut ma day tane taf-taf waaw trois jours laa koy faj. jabet bi génn nag moom ba mu jeex tag jabet ku jabet bañ na jabat nii na dañ koy tere nangam trois jours lañ koy kii mu wàcc bu wàccee na ñu def ak moom ay traitement xam nga yenn saa yi mën na toll foo xam ne c'est urgent ku toll urgent boobu nag laa wax kooku trois jours ñu calmer ko ba dons bi wàcc su ko defee mu na traitement yi traitement yi douze jours la incha yàlla dina si def sutura. am na koo xam ne la amee ba bët une semaine lañ koy faj cataracte. da ngay ñëw ñu jox la looy sëlmoo rek kese mu jeex du duñ la wax sax ay traitement ak nang da ngay dem ñëwaat rek dem ñëwaat mukk sa àdduna lépp a ngi si alxuraan te si alxuraan lañ koy fajee ak sunguf ak reen yi nii jabet ba sa bët yi nangam gisatu nag nangam wala ñu ne kii bëtam yi bindal nañ ko rendez-vous ba nangam dañ ko war a opéré mukk na ñëw man maa ko wax na ñëw man kemtaan borom bee jën bi. Mhm. na ñëw bët yi bii xesan bii ñëw bët yi di toxoñu bii ñëw bët yi di jooy na ñëw balam fii génn bët yi nekk toxoñ baag yooyu yëpp day dëñ su demee mu kon ne traitement yi benn kooku moom benn rendez-vous laa ko jox. Hmm. Mhm. ay wàllum nga xam ne ñi fare ci mhm. waa taab dafa bëri façon mën na nekk taab boo xam ne yàlla mën na la ko nattul ñetteel mën na nekk koo xam ne da nekk nit ku fës si nit ñi ba cat topp la wala nga nekk nit koo xam ne ka nga xamul nit dina am gàllaaj dëgg moo waral mi am tàpp parce que ñu koy def lu nekk gàllaaj yuñ koy sànni euh, xarfa xuufa ñu koy def mooy génn seeram bi di feeñ feeñ ay am na tàpp yoo xam ne te ay mën na nekk kort wala njabar liggéey boo xam ne tàpp bi du wér guddeeg bëccëg kaa bu wéree rek day ñëwaat wala saa boo toogee moom ne wér na rek ñëwaat suñ jokkoo incha allahu rabbi bu ma xamee na tàbbi liggéey la wala njabar la si kaw ñu xam lan moo ko def day dëñ carrément góom bi day wér këng dootul ko dégg. ci wàllu korte ngay wax ak wala njabar. Mhm. am na i cër di mhm. ba li ci ëpp yàlla na ma yàlla jéggal ci wax ji mais barsàq lañuy dañuy mujjee ñibbi. Mhm. loolu sëñ mën loolu bokk na si lu gën a tuuti ñu koy faj. Hmm. bokk na si lu gën a tuuti nga ñëw ak nga ñàkk ñëw wooñu nañu lii mooy sa jàngoro ñu xam ko ala kulli aali muy kortu muy njabar muy xam liggéey bu ñu def si yow wala liggéey boo dëgg ba sa yaram bi parce que da ngay gis yenn saa nit ki toog fu mu toog day tayal bëggatul génn bëggatul dem liggéey yaramam bi di métti day yeewu war a génn sax yaramam bi du ko attan day yeewu war a dem fenn sax du attan yaram bi kooku buñ jokkoo incha allahu rabbi ñu koy liggéey une semaine la mu gis sa yaramam changement kooku day def traitement mais traitement bi duut loo xam ne day ñëw demaat ñëwaat demaat nii ne noonu day ñëw ñu defar ko lépp jox ko ne ko nii nii nga koy defee waaye nag bu peree ñun ñooy toog fii suñu kurus mottali ko ñun buñ liggéeyee nit ki pare duñ la bàyyi nga dem de buñ la bàyyi nga dem dañuy toog cangat yu ñu la war a jox ak saafara la war a jox dinañ la ko jox waaye nag ñun ñoo koy mottali si suñu kurus fii. Mhm. am na loo xam ne nii moom xam naa sëñ moom ko koy bàyyi docteur yi muy bëñ yi metti. fekkee na nag nekk na bëñ boo xam ne dafay néwi ba mën a toosi daara di néwi bu ñëwee fekkee ne liggéey la dinañ ko faj fekkee nag feebar boo xam ne yàllaa ko si def ba bëñ bi yàqu na xam ne opéré rek mooy sës wala buddi rek mooy sës loolu mënuñ ci dara na dem kii dama koy digal mu dem si médecin yi. Mhm. mais xeet xam ne ay jàngoro la mhm. sëñ bi mën na ci yow dara lu ci mel kaaraange ba loolu bu ñëwee day dëpp. waaw loolu la ñuy wax kaaraange wallu mag sànq daf mel ne gis nga ko fi. kaaraange waaw borom ndox. gaw yu bëri waaw borom gaw yu bëri xam nga wëllu wëllu mag dafa bëri ay façon wallu mag boo ko déggee maanaam mooy koo xam ne da nga nekk si dara comme yow mii sa liggéey bi nga sonn nit ñi sonal la guddeeg bëccëg ñu ngi def si yow ngir gàllankoor guddeeg bëccëg ñu ngi def si yow ngir loor la yaa ngi comprendre nga dem ba sonn dem nag si mag yi ñu wëllu la. ñoo xam ne comme bu njëkk fajum aada ay mag rekk daan ko def dem si magi nag fajum cosaan mag yooyu ñu wëllu la incha allahu rabbi kuñ jokkoo nga nekk si place boo xam ne wóor na la ñu la teg bët dafa bëri ñu lay bàyyi xel dafa bëri liggéey def def yi dafa bëri si yaram mën nañ def si yow loo xam ne liggéey doomu aadama dootu la liggéeyam def si te ku rep rek wala lazim ku rep rek mooy jéem a jëf euh, jël bi nga fooy di jëm si yow lu bon mukk sa àdduna ku ko def du ko doon liggéey bu waaye man a def si si yow day këppaat si koom ala kuliali loolu moom kaaraange moom nit ku bëgg kaaraange nekk si place nit ñi sono la si nekk si dëkk nit ñi sono wala nga nekk bërëg boo xam ne wóor na la danga nga faa bëri noonu wallahi lazim son noonu yëpp dinañ mujjee nekk sa xarit dañuy sonn bàyyi ñëw voilà boobu am na benn càngat bu nekk fii ak ndombagu mi ànd ak boobu la ñuy wax sonn bàyyi parce que cangat gi am na ñoo xam ne euh, mënuñee sangoo saafara waaye am ñoo xam ne mënuñee takk ndomba ñii xew soo ñëwee suñ xoolee sarawaan bu méngoo rek ñu jox si kooku sonnu bàyyi la tudd sonnu bàyyi. Mhm. kaaraange biir géej wala ci ki ngay déggoo lu wax si lépp la ay waaye am na ndomba goo xam ne gu ñu def booy ndomba kaaraange ndomba xaaraan ki ndomba googu boo ko takkee. ak accident bu doon téeméeri accident ngeen kii xamal ne xoos doo ko fa am doo dee si géej doo dee si safara yépp deewu xaaraan yoo xam ne loo xam ne jugewut si yàlla xamal ne du la dal. soxla na hmm. suñu mbokk jigéen ñi. Hmm. ndax ñàkk borom kër fi moo <laughs> loolu moo gën a tuuti si lu ñuy liggéey borom kër 21 jours lañ koy liggéey. bu yéexee bu yéex fekkee ne say mbir dafa dëgër ñaari vingt et un jours mi quarante deux jours nga dégg alxayri hmm. quarante deux jours man kay lay joxe ku ñeme loolu na wax ku ko weddi tamit na woote. ak ku mënti nekk nekk. sekk ñu nu ñuy liggéeyee fekkee da nga am muskila boo ñëwee dañuy fexe xam yow lan moo tax amoo jëkkër hmm. fekkee ne liggéey bu ñu la def la ñu dindi liggéey bi. fekkee na rab bu nekk sew ñu dindi ko fekkee na def-def bu ñu la def ñu dindi sax fekkee na say compliqué bopp la parce que tamit nit ñi dañoo ko am na jigéen ñoo xam ne dañoo compliqué de dañoo compliqué nañoo xam dëgg yenn tout le temps ma teg fii ni xas ko bëgg a dee mënoo di ñaanloo ñaanloo guddeeg bëccëg ku ñëw nga xas ne kii dafa mel nii kii dafa mel nii non non boo bëggee nag yenn saay doo mel noonu waaye daal kuñ ci jëflanteeg mbirum jëkkër fekkee na da nga am lu la métti fekkee ne dafa am lu ñu la def dina dëñ fekkee na rab la dina dëñ te incha di nga am jëkkër di wax waxi rab. Mm-hmm. rab dina yàqal doomu aadama ba lépp lum dugg rek du si am ndam rab dina yàqal nit ba palaas boo dem sax benn fan nga fay def ñaari fan yow da ngay énervé wu doo fa bëgg a demati. rab dina yàqal nit ba nga xamante da ngay am tey ji nit ku baax wóor na la nit kii da dana lay jëriñ waaye da ngay toog toog rek di énervé wu doo bëggati si moom dara su la wooyee sax doo bugga bu la wooyee doo fa bëgg a dem loolu yëpp rab bi moo lay poussé pour doo nekk nit. Mhm. rab bi moo lay poussé pour doo nekk ak kenn rab dina nekk nit di lay yàqal ba dangay ngay xëy suba déposé say këyit bañ xool ba mu baax bañ la woo ñu xëy suba woola nga war a xëy dem fajar gi sa bopp bi di métti doo am dem doo mën a dem wala nga am gàllankoor rab dina dina lay def dangay toog yow kenn foo foo bëgg rek foo nekk rek da ngay bëgg yow kenn di toog te lu ndaw lu la laaj la dangay ngay wu pour nga énervé wu dafay yomb lool. da ngay toog surtout ñu gën a sonal nag jigéen ñi soo xoolee boo génnee sa téeméeri jigéen quatre-vingt-quinze pour cent yëpp bu dix-huit heures xasee jot rek dootuñ am jàmm bopp bi métti la ñu fanaanoo téeméeri jigéen bu dix-huit heures jot rek dootuñ am jàmm seen bopp yi rek bopp bi métti bopp bi métti bopp bi métti bopp bi métti ba fajar gi loolu nag ku si mënta ñëw bopp bi métti waxuma rab de maanaam bopp bi métti moom duñ la wax ay demal ma ñëw ak naan da ñëw ñu mocc ko jox la benn téere mu jeex tàkk bopp bi métti tàqalu ko ak yow ba abadan te lépp nag si alquran lañ koy liggéey rab moom luñ ciy faj doy na waar luñ ciy faj doy na waar te maa ngi gis sama benn kii suñ benn sëriñ si nañ bàyyi nu ñuy faj nit ñi dañoo feebar. Euh, tur ba sa laa xamul waajur sant saw defe naa moom la man jàpp ma turam parce que dama koy suivre si YouTube bi nit ñi dañoo feebar ku feebar ñëw si yow bul ko caméra di ko dugal si YouTube bi. amaana am na ñoo xam ne man mii am na ñoo xam ne yenn saa yi dinañ soxla dañ ba bëgg a ñëw si man waaye dañuy xalaat mbaa seen foofu di bëri nag nangam nangam nit ku nekk nit ñi danañ am soxla waaye ragal mbedd mi du ñëpp ñëpp a fës amaana ñooñu ngay jël di YouTube di dugal di di vidéo di dugal si YouTube bi am na kilifa goo xam ne mu ngi toog këram ñëpp xam ko si dëkk bi loolu daal leen mu ngi leen dal mais ragal nañu gis ko si YouTube bi moo tax du ñëw mm-hmm. liggéey dafay ànd ak sutura nañ bàyyi nu ñuy caméra di dugal si YouTube bi nañ bàyyi ni ngay caméra di duggal si YouTube bi rab moom ku ku manta doon nang la takk na ngay dóore na nga perte sa mémoire di dem ak yooyu ñu ne rab a dal bu ñëwee dañ koy faj taf-taf du nekk sax naan la ay deux jours trois jours ak nangam naan benn fan boo ñëw lañ koy faj mu denc si yow nga ko ne traitement bi fukki fan ak benn la rab bi jeex si yow bu jën teg te dootu la dugg. Mhm. rab waaw waaw. Hmm. waaw waaw waaw waaw bëri na artistes yu bëree bëree bëree bëree bëri rab moo leen di yàqal rab dalay yàqal ba may say noon pouvoir ah waaw dalay yàqal ba sa noon yi bu ñu la defee lu bon rek dañ ciy jàpp mu gaaw parce que rab lu bon rek la lay bëgg a defloo bu buñ la defee lu bon pour yàqale yenn saa yi da nga gis benn artiste nit ñi dëgg ko turam ak bayraam ak ñëpp di ko dégg waaye nga toog toori ñu naan anamu moom moom mbiram fan la toll loolu rab dina kay def nit doomu aadama rek mënu la yàqal dañ lay yàqal rab bi ñëw may ko doole waaw rab bi ñëw may ko doole. seex bi artiste bu fay waaw waaw bu fay. luñ koy taalee yomb na <laughs> waaw. yow ku la indiloon Abu Cubuloo waxuma Abu Cubuloo keneen ku gën a ñu gën a wàcc Abu Cubuloo man xaw ma sax artiste waaye ñu leen gën a wàcc am na lu ñuy liggéey fii nii carrément ah seen sangat fukki fan ak ñaar la. am na jaaru buñ lay jox ala kulli aal dégg na déedéet hmm. waaw kook la ñuy wax jaaru ja jaaru bi. da waaye du jaaru bi kese lañ lay jox jaaru bi dafa am càngat yu muy ànd ak am na cangat yu muy ànd waaye bu jaaru bi peree tamit dinañ adat sa tur am na tur yàlla buñ koy booleeg hmm. bu ñuy wax almaliku. moom xam nga tur yàlla boobu nu ko booleeg adat ko bu ñu la joxoon lim bu mu ñuy jox dinañu jox tamit sa tur ak dëkk ba nga nekk li nga bëgg a toj yëpp dañ ko adat jàppal la ko kurus. 41 jours lañ la may nga melaat noo xam ne si dëkk bi kenn xamul nu mu tey ñaata artiste lañ si jëflante ah. si góor ak jigéen. ñooñ ñooy gis résultat kay man damay jëf ñooñ ñooy gis résultat parce que bu ñu gisoon résultat duñu fee indiwaat ñeneen ñaata artiste kenn xamul ñu luñ jëflante si artiste kenn xamul nu mu toll. kon yow fan weer yi ñu génn artiste yi fi yi fi siiw yaa waxuma weer yi de waaye semaine bi rek artiste ñëw na fi. te boo toogaatee léegi du yàgg du mataat une semaine da nga déggaat artiste bu si def bës bu rëy. ci mbalax la wala ci lal la. wala fecckat la wala la wala yi su ma ne turu artiste rek yooyu yëpp si la. waaye su ma nee suñ turu artiste wàllu may woykatu musique yi man xam ma ay mbalax yooyu woykatu musique yi ñooñu tax may wax. yaa ngi waaw waaw maa ngi ciy taal ñuy takk jëfet <laughs> artistes kay am na ndomba gu ñu leen di jox fi ak cambat googu. Hmm. artiste bu rep rek moo koy laal ñaari yoon si at mi. Hmm. artiste bu ko laal ñaari yoon di nga dugg kaso. waaw bu ko laal ñaari yoon si at mi di nga dugg kaso. wala dangaa gàllankoor parce que bayra bi moo lay ëpp doole nit ñi dañ lay topp àddina bi yëpp naan yow ak yow la te suba mën na la indil gàllankoor kooku moom ñii ma koy defal yëpp dama lay wax ne benn yoon nga kay laal si at mi yeneen nag am na tollanti ñu laalaal tot ko waaye càngat bi dëgg dëgg dëgg benn yoon nga koy laal ci at mi ba burut artiste sax koo xam ne dafa bëgg bayra nekk si entreprise entreprise am di wàcc euh, am place comme commerçant yi toog toog gis place bi di daanoog yooyu noonu kooku dañ ko koy liggéeyal ba say mbir dafay gën a dox di gën a yaatu waaye nag boobu càngat boobu moom mooy càngatu at mi boobu la ñuy wax badar waaw ndam rek boobu la wax badar càngat boobu ñu ko xam fi bari na ay jeunes joueurs yoo xam ne nii seen si mhm. mhm. waa joueurs yi de moom dama leen bàyyi woon ñaaneel carrément. Mhm. dama leen bàyyi woon parce na ma yàlla jégal waaye ñu si jaar fii ñu bari am na ñoo xam ne xam naa leen ni duma ma tudd seen tur commencement ba ñu nekk fii Sénégal di nekk ay nawetaan la ñuy wax seex bi bu ma demee seex bi waaye am na si ñoo xam ne bañ signé poro nga leen gëj a dégg xamatoo leen sax wala ñooñu duñ la xamati moo tax mbirum footballeur moom dama si bàyyi woon kii parce que tamit footballeur moom lu ñu si def garaaw na lool sax mi nawetaan yi nawetaan yi moom dama ne dama ko bàyyi parce que booy yi may yar si sama booy yooyu su ma bu nawetaan wooye dama lay boole yooyu nawal nawetaan moom amul lu ma si defut nawetaan moom amul lu ma si defut waaw. mais Cheikh bi li ñuy wax ñu bon ñi ñoo yàq ñu baax ñi. Mhm. am na ci joueurs yoo xam ne ñu am kóllëre mhm. te bu fekkee da ngaa nar a bàyyi nii ndax ñi la def loolu bu boobaay yi di nga ñoo xam ne nii seen soxla mënoon naa fajoo ci yow. Mhm. ñooñu bu fekkee dañoo ñëw net ay nit yu kóllëre. man ñu nekk nit yu kóllëre yooyu noonu yëpp sax man amul kii man maanaam maa la waxoon dama ko bàyyi waaye ku ñëw. du ma la ne dama lay ñaanal pour ñu ànd si kóllëre déedéet parce que tamit nit ñu la war ñëpp loolu la lañ la wax nañ ànd bu liggéey dama naan la lii temps laa xëy liggéey ñu diggéey si liggéey ñu defal si yow sa jëmmi bopp da si gis résultat te di nga ñëwaat waaw ala kulli aali du yàgg te ya nga gis ñu dàq fubal fu ñu toll dañuy gaañu dañuy damm beneen si buñ jógee duñ dem fi leneen gàllankoor rek lañuy dem ba dañuy mujj décroissé waaye sœur buñ si jëflanteeg incha allahu rabbi du yàgg dara danañ la dégg si àddina bi yëpp waaw. boo xam ne mhm. ñu koy woowaat équipe ak joueur bu mënta nekk donte cinquant sax ñëw indi équipe nationale. ak jour bu mu mënta nekk laa la wax de donte cinq ans ñëw équipe nationale bu ñu jëflante équipe nationale woote bu muy woote waat danga nga ciy bokk. Hmm. waaw ak lu ngeen mënta def donte équipe nationale da nga faa def erreur rek lu mu mënta nekk bu ñu jëflante ñu wax ba déggoo si kàddu man ak yow bu ñu déggoo si kàddu parce que may wax na dañuy déggoo si kàddu. sélectionneur bii di ñëw da nga bokk. def naa ko ñaata yoon nga fi gis jour Sénégal jour bu dem ba toog ay jamono ñu ne defaat na retour. Hmm? waaw waaw. jëflante bi nu muy demee day dugal xaalisam di xaar wala da koy defal ba mu gis. Hmm. muy doog a ñëw. ala kulli man lépp lu ma liggéeyal nag yàlla dina si teg suñ borom yàlla suñ borom dina si def uh, sutura ñun manuñ dañuy liggéey ñaan yàlla yàlla faj ko duma liggéeyal kenn mukk ne ko lu ma lay liggéeyal far foss di ko gis déedéet du ma liggéeyal nit noonu lépp lu may liggéeyal dama naan incha allahu rabbi ay jaam leen rek. dañuy ñaan yàlla di may mën nañ ñaan yàlla ñàkk may te yàlla sax lépp lu ko waaye ñaan di nga ko ko may dina la ko may kanaa mu gaaw mu yéex waaye tamit da nga koy wax ne ko bu gaaw laa soxla ñun lépp lu liggéeyal ni moo tax képp ku ñëw duñ la garanti ne la far fos wala boo gisee fay ak far fos nii dañ naan leen temps la ñuy liggéey bàyyi ko si loxo yàlla te boobu ba léegi nag ñu ngi si liggéey ay ati at ñu ngi si lasaraar ñu ngi si ñaan yàlla lépp lu liggéeyal doomu aadama doomu aadama ngi ci teg bëtam kon loolu ñun moom amut fay ak nangam a nangam sans si sa gëm-gëm rek defe naa ne booy sant sëriñ bi ñaan naan ko damay bàyyi ba gis doog dafay doo doo gis dara doo gis dara ak ku mënta doon bàyyi ba gis doog dafay doo gis dara sëriñ bi lu man man man lu mu bëri bëri bëri xam doo gis dara ma ne ma sëriñ bi dañ maa a naxa a nax ba sonn man damaa dem si sëriñ ba découragé ma ne ko ndokk man nag yàlla dimbale ma ba ñu dem ba découragé la may yàlla di booleeg mu puus leen dugalaat leen nag si milieu bi ne leen nag baaraam yi nu ñuy um utee noonu la nit ñi utee waa diaspora bi nag dañ leen a sonal maaraay dañ leen a sonal hmm. parce que internet bi boo duggee maaraay bëri nañ ba mënoo mënoo leen sax ràññee hmm. te chaque jour diw lekk na sama xaalis diw lekk na sama xaalis diw lekk na sama ba mujj loolu loolu lan mooy wax. <laughs> kooku di wax euh, nu mu tudd euh, tur ba laaj jàpp ah. Kunkande Kunkande dama koy suivre bu baax. nee naa ko mu ne nañ def euh, championnat nee na benn mara uyu ko soo demee si moom wala boo yore numéro ne ko kéemtaan borom béjjën bi noonu nee na pere na. waaw. te bu championnat bu nit ñi wut sax ne ko nañ def man ak moom plateau pere naa man ak moom ñu def plateau ñu def lu def xam nga sëñ bi fii réewum jullit la nañ bàyyi toog ci tele bi caméra yi wër la caméra yi wër la nga naan dafa war a def sacrifice bii dafa war a tuur deret fii fii réewum jullit la nañ bàyyi deret ju ñuy tuur fii deret ju ñuy tuur ñooy xaftal ndaw yi ñuy agressé xaftal ndaw yi ñuy xeex jamante paaka bi xoolal mbedd boo romb ñu ne chaque jour nga dégg su naan ñu ne xale bi moo jam diw paaka kii moo jam xaritam paaka teywut ko sacrifice bu ñuy tuur si dëkk bi la nañ bàyyi loolu waaye man dinaa ko wax ne lépp lum def si sacrifice ma dindiwaat ko si nuuraaniya lépp lu def si sacrifice wala bépp sëriñ boo xam ne sacrifice ngay liggéey di taxaw si ndamu lépp lu mu def si sacrifice wala xam-xamu zulmaaniya ma dindi ko man maa leen wax ñoo ñëpp nag ñëpp képp ku naan saltige laa bépp xam-xam boo def si euh, loo def si kii nu mu tuddati zulmaaniya ma dindiwaat ko si nuuraaniya dindi ko si alquran gii ñuy liggéey dëkk bi réewum jullit la nañ wax nañ wax réewum jullit la nañ ko waxee lool mais buñ nekk naan nañ tuur deret kii dafa war a génne nii dëkk bi dañ ko war a ndëppal pour lan Sénégal ñaata kaamil lañ fi wàccee par jour ñaata salaat faatee moo fi wàcc par jour ñii napp nañu di leen nax noonu lañ nekkee waa bitim réew ku ñu wax ñu ne dañ la war a tuurloo direct fan yële passé am naa benn kii nee na uh, waa ji lu mu ko tuurloo xam nga ban sëriñ nee na benn sëriñ moo ko laaj ñaari nag bu weex ak bu xonq te ba mu ko defee dafa amoon problème si uh, bërëb bu mu liggéeyee bañ ko génneeloo sarax yi ba ñuy tuur deret ji la lañ ko dàq foofu ba ma ko seet la dañ ne ko war a doon tuur deret julli la du ñëpp a war a tuur wartoon tuur deret ji loola yàq liggéeyam nañ bàyyi ñu ñuy nax nit ki bu ñëwee jox la alalam wala jox la xaalisam am si yow yaakaar àndal moom fillaahi lillaahi yërëm ko xamal ne yaakaar gi am si yow moo ko indi si yow mu yëkkati ñaqam di la ko jox yërëm ko nga liggéey looy liggéey da si ànd ak yërmande. am na ay mhm. bi ak Bombardier bi am na lu ma si gis. bu Modou Lo ak Ama bi am na lu ma si gis. Hmm. ci gis. <laughs> soo ma xam nga mbirum làmb dafa doy waar. ay million doomu aadama ñoo koy seetaan te si nit waajal mbokkam ay mbokkam waaj dem ba sa digg ba nga ne ko dañ lay daan loolu neexut si xol bugguma tooñ te dekkut nit ki lu xam rek wax ko nit ki loo xam ba wax ko nit xam na lu ko gën a garaw noppeeku waaye mii ñaari mbër yëpp wala koo xam ne si staff bi la bokk ku ma si seeti dinaa la wax nu muy demee fekkee ndax ma seet sa mbër la war a daan dinaa la ko wax bu laajee ñaan ak sarax ñu def ko si waaye mii Balla Gaye mii Bombardier xam euh, mii Modou Lo mii am na lu ñu si mhm. mhm. la woowee. ku ma woo léegi wax la ko waaye dañ am sart kay bala ma koy wax danga may danga fay. Ah. waaw. la léegi paa nga bañ a génn kay buñ toogee fii ma wax la ko yow doo doo génn booñ bu émission bi pare ma wax la ko nga dem ak moom ku neex nga wax ko waaw ah. ah. loolu kay leer na. loolu loolu loolu rëy de. Ah, ah maa ko wax de. te daw ma làqutuma. kon daal combat ko da waaw. am na mbër samp waaye dama ko sampoon ba sa digg ba xaw ko mere. waaw. ndax euh, dama ko samp ñu liggéey si wàllu làmb combat bu muy demee ñu dem ba këram du toog këram laa la wax de toog naa këram man ak moom ak soxnaam ma ne ko da ngay daan mbër mi nii nga koy daane ñu waxaale temps ba combat boobu jeexee laa ko gëj a dégg ba combat boobu jeexee guddi ga la euh, déggante nañ sa suba ga déggante nañ dem naa ba këram waaye jour boobu laa ko gëj a dégg laa ko gëj a dégg gëj kaa gis. boobu laa si génn nag ba pare set wecc bu mag a mag a mag a ba kay àddina bi yëpp xam nañ ko te bu ma doon ko ñaanal combat roi yàlla bi yëpp xam nañ ko bu mag a mag a mag la waaye léegi moom wax dëgg ñaanal tuma ko nag. combat roi mhm. mu daan combat. boobu. Modou du Modou Lo moo nekk si roi bi <laughs> Modou Lo moo nekk si roi bi di <laughs> eh non du ma wax daal <laughs> ma bañ a tudd tur rek parce que sutura ba ñu séq man ak moom man ak moom ma ko séqoon combat royal yi moom ñu ko fi bëri waaw Bombardier moom fi bëri combat royal ak Balla Gaye daan daan ko waaw Eumeu Sène bëri fi ak Bombardier daan ko waaw Modou Lo fi ak Eumeu Sène daan ko waaw ñooñu moom mënu cee génn soit Balla Gaye la wala Eumeu Sène <laughs> uh-huh. wala Modou Lo uh-huh. wala Bombardier ñeent ñooñu moom mënu ba tey man comme si mën a nekk rek waaye ala kulli moom moom mi may wax bu déggee wax ji dina xam ne maa ko wax tey ñu ko sës maanaam mbokki mbërëm yi nga xamante ni ñooy topp si ginnaawam sax buñ seetaanee dinañ dinañ ma xàmme bu baax parce que bi ma daan dem kërëm ñooñ ñoo may escorté ma dugg dem naa këram ay guddi ay yooni yoon avant combat bi su ma daan fa dem bu ma demee ba foofu ñooñ ñoo may dugal ba si biit kon de daa mel ni ah, parce que tamit olof day faral di wax ne ku war daaw ren mu jig dañ la ko tuumaal du yow waaye tamit allah du du suñ jàmbaare ba mu xëyee xëy tamit def luñ kii jëluñ ci benn kurus xeex ko wala jëluñ ci nangam bu dee benn fan sax yëkkati na nga teraangam def jox ñu ko ñu bu benn fan sax yëkkati nañ suñ xam-xam dimbalante ak moom. kon nag lu mënoon a def rek dañuy sant xam ne loolu la yàlla dogaloon suñ ànd foofu la ko yàlla yemale woon. Hmm. mbokki internet yi seetaan Wassare Lamb dinañ nopp. Hmm. lan nga ci mën. nopp dafa bëri façon comme yan nopp. Mhm. waa loolu dañ ci liggéey ba xam tey parce que nopp ñun luñ ci liggéey dafa doy waar doy waar ba léegi sax dañoo bàyyi liggéey ko xale góor wala xale bu jigéen mhm. dañoo bàyyi liggéeyal ko xale bu góor wala xale bu jigéen parce que tamit nopp bu ñuy def si nit du nit ki dina nekk si yow loo xam ne day mel ni sa taalibe boo yilif sa kër te loolu nag boo ko defalee koo xam ne relation ngeen séq su boobaa leneen lu si xew yow sëriñ bi yaay nekk responsable bi képp ku may nobal daal dañuy wax lu leer nob bi dina nangu farfos dina di di di di eh, li nga si bëgg di nga waaye kër boo toroxalee aji koo koo nga toppoon mu nob la kër boo ko toroxalee wala di ko maltraité dama koy toj liggéey bi day toj fu ma toog lay toog xam ko waaw waaye nob moom fekk nga fi tàngal bi nii waaw mante fraise ji man man defares waxuma la maanaam nopp góor yi jigéen sax waaye góor góor sax nga bugg si góor dara dangay ñëw ñu am luñ ci def rek ay tur yu ñu ci jàng rek wala ñu bind ko si jox la Macky Sall sax boo demoon wax ak moom li nga bëgg dina la ko jox. Ah. Mhm. yaa koy màcc wala yow yaa koy màcc yow mi yow mi wax ak moom màcc ko rek dem wax ak moom. Hmm. waaw dafa am saafara bu ndaw bu ñu lay boole rek benn kaas lay nekk da nga koy galax pere rek jël mande fraise bi macci dem. waaw sa wax moom duñ ko dindi waaw rek. man de Feres ji. béjjën bi nag. <laughs> waaw béjjën bi dinaa la wax. waaw dinaa la wax be béjjën bi waaye duma la wax mbooti béjjën bi parce que béjjën bi li may wax euh, lii yi di wax ni bu génnee euh, nu mu tudd daaw ba ren. du génnaat daaw si heure bi la gëj a lañ ci gëj a wax. mbóot mi parce que béjjën bi nuñ ko jotee ay mbóot la moo tax bëgguñ tamit te mbóot moom boo ko xasee ba wax rek nekkul mbóot. moo tax bugg wax si béjjën bi waaye béjjën bi tey nii kër goo xam ne dañoo jiwaloo kër gi kenn jubawut sa morom buñ ko fa sampee fekkee ne liggéey buñ def la liggéey buñ fa mënta def lépp ay génn ñëw fu liggéey nekk si kër gi dana ñëw nga gis jëx ren hmm. fu liggéey mën a nekk si kër gi buñ fa sampee béjjën ba def suñ ñaan yi nii ba samp liggéey fu mënta nekk ci kër gi day génn hmm. waaw bu dee nag cas d'entraînement mhm. kii kay fépp foo ko mënta samp liggéey buñ fa mënta def buñ fa mënta def day génn naa xamu ne béjjën bi la ñuy sampee nit hmm. am na beneen bu nekk ci biir boobu du génn ñu ngi koy wax béjjëni kooba boobu du génn. moom la ñuy sampee nit kii tey jii bu ñuy samp politicien wala mbëru làmb wala footballeur wala koo xam ne sax dafa nekk ab fecckat wala ab woykat bëgg àddina bi yëpp xam ko te kenn du ko mën a jëlee place bu mu nekk kii la ñuy sampee dinañ dem ak yow ba géej am nañ fa digg bu ñuy liggéeyee dina la am ga cangat yu la jox boo ko cangee ba pare di nga ko samp ding nga ci samp fukki samp ak benn soo pare dañ ko fay bàyyi ba ñëw lu ñuy liggéey ba fii leewaat ci kër gi liggéey ba xamal ne lu ñuy liggéey nangu na ñu doog a dem sempi ko yow kenn dootu la sempi ku rep rek moo lay buggal sempi de ku ñu suul ko ku pour sempi rek mooy suul nañ ko waaw. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaanal mbokk Sénégal yëpp di sant kilifa diina yëpp di leen ñaanal yàlla na yàlla guddal seen fan di ñaanal suñ xalifa bi yàlla guddal fanam yokk wéram di ñaanal bépp xalifa diina. Euh, murit ak xaadir ak laay nag tiijaan ak ñaseen ak ñëpp ñu ngi leen ñaanal yàlla guddal seen fan parce que tamit Sénégal gi ko barkeel ñu ni tamit tey ñun ñi nekk ndaw ñu toppaat ci mag ñi ñu ñuy digal ñuy def ba yàlla may ñu lu ñu may di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal politiciens yi di ñaanal sama mbokk sëriñ daara yi di ñaanal xale yi jàng yàlla mottali seen jàng di ñaanal étudiante yi ñuy bëgg liggéey yàlla may leen liggéey ñu bëgg jëkkër yàlla may leen jëkkër képp koo xam ne li nga bëgg mu ngi si sa xol yàlla may la ko bépp jàngoro bu nekk si sa yaram yal na yàlla wëreel ko jërëjëf